asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi mille décembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi moo xam sunu làmb la la tribune journal bi nga xam ne moo di l'observateur ba ci leewtoo point net fu nekk rek tey ay xibaar xëy na fa li olof di wax nag ku bëgg fu mu fanaan ak ku bëgg ku ko wéttali daa mel ni tëjël buntu bi moom daawu leen boole bu amee nag mooy diggante Modou ak Ama Balde ku ci ne ci ñoom ñaar daal bëggoon nga jàmmarloog sa moroom mu mel ni ki nag Luc Nicolaï moom ubbil na leen néeg ba ne leen dugg leen comme da ngeen a bëgg fu ngeen fanaan kii bëgg ku ko wet li néeg baa ngoog maa leen ciy dugal daal di leen dugal nag ba max leen ca biir loola mooy lan yëglikaay yi xëy nañ ci wax maanaam nag avance ba génn na wala avance ya génn na bu dee ki nga xam ne nii daal moo di Luc la moom génn na avance ya joxe ko léegi wala boog bu Ama moom jël na ko mu mel ni ki démb daal Magdiazil Baldé moom ci teewaayu Mbaye Diagne ma nga xam ne nii moom moo représenté woon Nicolas Enko ñëw nañu daje ba ñu jox Jules xaalis ba nga xam ne nii mooy avance su combat ba kon léegi mbir ya leer na journal yëpp xëy nañ ci ñëw l'observateur wax na ci moom jàpp na ne combat boo xam ne budget ba toll na ci 400 million loolu moom la ñu xëy wax mu mel ni ki nag fi mu nekk nii daal ah combat royal ba moom boo bëggee dégg dëgg nag date ba ne nañ le 26 juillet daal ci lañ ko fas yéenee amal fañ koy amale nag du fenn furul ca arène nationale loolu mooy wax mu mel ni ki nag Mbaye mu ngay wax ñu ne Zil Balde moom encaissé na li nga xam ne nii moo di wàllu ñi nga xam ne nii moom moo di waa kër Ama Balde moo tax nag Ibou fay moom it wax na de ne na léegi nag lay jeex na de waa Pikine nañu jóg mu mel ni ki fi mu nekk nii kon jóg jot na. l'observateur tamit ñëw na wan ñu ñaari mbër ba tey ci aw foto ku nekk yaa nga taxaw nag ngémb ba dëgër rango say gàllaaj yëkkati say loxo di wane ne kon pare nga ngir ka ngeen jàngaarloo wala boog ngeen jàmmaarloo war a bëre l'observateur wala la tribune itam nee nañu nag enfin kon nag léegi daal mbir ma jeex na combat ba taxaw na ku ci nekk jël nga sab xaalis ngir li des nag kon mooy sëgg dal di bëre yëglikaay yëpp xëy nañ tey ñëw ku nekk indi ci sab xam-xam dal di cay wax leneen loo xam ne tamit gis nañ ko ci yëglikaay yi jàppal muy loo xam ne nii ca Leewtoo point net la ñu ko fekk muy MMA ba nga xam ne kii di Bombardier war na koo jongante fa nga xam ne nii day moo di ca Angleterre le 28 février la ñu yëgle kaay bi wax kam koy séqal nag mooy dañal dañal daal la koy séqal dañal nag ab anglais la boo xam nii daal ceinture bi nga xam ne boog mooy champion du monde bi wala ceinture mondiale bi moo ko téye moom la Bombardier fas yéenee jàmmaarlo jàmmaarlo ak moom ci wàllum MMA bi waaye MMA booba nag am na ñoo xam ne moom gis-gis ba ñu ca am moom baaxul ku mel ni du jaan jég ko président des amateurs moom jàpp na ne day réew yu baree baree bari MMA dañ ko faa interdit kon réew mii nu ne muy Sénégal moom waree su ko fee sax nangu wala dañ ko fee war a génne mu dem a dem ca biti bañati fee sax ñëw loolu mooy gis-gisu ki nga xam ne mooy président des amateurs di du jaan jég ko ka nga xam ne nag moo di Cerno Ka moom bañ ko ca laajee moom ne na li leer ba daal moom commentaire du ko ci defante loolu mooy ay waxam ci mbir moom mu nga xam ne nii moo am loo xam ne nii moom suba lay am muy ab combat war a dox ci diggante abu ñaase ak Tafa Gueye numéro 2 am na koo xam ne nii moom xëy na di ca wax di ab menace nekk ci écurie Ndakaaru muy Sawru Fall Sawru daal la mu xam ne na li leer ba leer de nañu def ndànk de defuk teey ndax nag Tafa Gueye 2 mën naa kéré surprise bu réy réy suba ci àllarba ji bu ñu sàgganee maanaam daal kon mu ngay dànkaafu gaa yi leneen loo xam ne moom lañ ca jële neexuñu muy diggante bàyyi ma njoon ak xoyantaan yëglikaay bi di sunu lamb dafa ñëwaat dañu wax nag la waral combat ba mujj ci ab fiasco wala yàqu boo xam ne daal nit mënatu koo saaf naar ne na ki nga xam ne nii day moo di bàyyi ma njoon moom boo bëggee dëgg-dëgg ay rakkam ñëwoon nañ jàppale si ko moo xam amet dem la wala rëg rek ku ci nekk daal ñëwoon nga jàppale si ma Mandione ki nga xam ne nag moo di Prince Sissoko moom moo fa présenté woon wala boog moo fa teewaloon ñi nga xam ne ñoo di promoteur yi moo loo itam yëglikaay baak ñu xamal ne day ñibbisi na nag démb liiru jaan moom yëglikaay bi ne nag balaa moo bëre daal la taxaw di laajte li nga xam ne nii day moom moo di ab li nga xam ne moo di relikaam yëglikaay bi moo ñëw tey di nu wax lu mel ni kii noonu leneen loo xam ne tamit dañ cay dem muy li nga xam ne nii moo di lambi simple ji mu mel ni nag drapeau Matar ba nga Matar ba ministre des sports drapeau ba nga xam ne moo amoon ca Fatick moom ka nga xam ne nii daal moom moo di Ousmane Senghor moo ko gàddu daal di ko yóbbu yëglikaay bi loolu la xëy ñëw tey dina ko wax mu mel ni ki nag kon fi mu nekk nii daal lañ doon ñaan yàlla dogal na ko wala li amateur lamb yi bëggoon wala képp kuy dund làmb mooy diggante Modou ak Ama combat royal lig ni ko laaya fa jaar kon nag li des mooy ñi ci des nañu jël avance yi bëre kon daal lig comme ubbi nga buntu bi nag yeneen promoteurs yi nag waaxu waaxu mu dëgër def ko waaxum giléem mu bañ a xaj ci pantre ngir combat yi mag yi mën a taxaw loolu mooy li ci des loo ci mën a dégg nag lig moom ñu ngi koy ñaanal ak combat bii mu tëgg yàlla nañ ci yegg le 26 juillet ñu bëree ko que le gagne promoteur yépp itam ku ci ne loo tëgg rek yàlla na ko njiglaayoo te ñu fekke ko ñu bëre ko que le mu mel ni ki yàgg maar supporteeru muudu yi ak supporteeru ama yi fi mu nekk nii nag lay jeex na yaamale ak maala na de eskado dak dem liggéey defe naa moo fiy des nag waajal sa bopp ndax bëre fa la waaye ku daanu rus yàgg maar mbokk waa Leewtoo TV ñu leen di nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndaloon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen ak si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay ndey Koumba di la ziar a nekk ah, di leen leen ñaanal jàmm di leen balu axa bu baax a baax a baax a baax ñu leen di jégalu bu baax a baax ci des fois njuumte yeeg erreur yeeg manque manque yeeg yooyu di wane que ne rek doomu aadama moo xam nga mais ñu ngi jégalu bu baax a baax loolu am na solo Babacar léegi nag euh, tey jii sunu làmb euh, euh, record tribune ak li nga xam ne mooy observateur ñoom ñëpp ñoo leen ci combat bi nga xam ni taxaw na diggante Ama balde ak ki nga xam ni mooy Modou comme lu waykat bi waxoon rek xamoon nañu ñoom ñaar daañu daañu tase. waa coon ak yuusu mooy bañ ko fi defee ëllëg si biir la way wa tuddoon mu ne ko xamoon naa ni daanu daje waa loolu am na fi mu nekk nii moom kon ah li des li li am ba des daal mooy dañu naan lig ko naay ak waa lig ni ko laay yëpp. Enco jaaraama ci combat bi parce que tamit lu nit ñi bëggoon la mën nañ ne combat bi bu ñu doon wax demande sociale ci làmb bi ci la bokk. yaa ngi dégg wala moo ci première bi comme nag yàlla dimbali na tey promoteur bi muy lig ba mu décroché ko ah alhamdulilah di ko ñaanal yàlla tamit mu jik mu nekk njiglaayam parce que nekkul woon lu yomb. parce que xëy na ñun sax dañu ji daan sonal li ñu woo combat fu mu toll lu tax taxawul ak nangam mais genre combat yi combat yi ay la. du loo xam ne nii da nga koy taxawal ci benn fan wala ñaari fan xay na moo taxoon mu yàgg yoon mais nag alhamdulilah yàlla nañ ko fekkete taal ko mbër yi bëre ko que le meilleur li ma si mën a wax nag ci ñaari mbër yi mooy ñaari mbër yi koy bëre maanaam lamb daf leen ameel njukkal wala ma ne sax ay mbër yu am jom lañu Modou Lo 2006 la ñëw ci lamb ji Ndeye Coumba Fall yàggu ci macha allah tey c'est roi des arènes bokk ci mbër yi gën a seer ci arène bi yaa ngi dégg loolu jom moo koy maye bëgg li ngay def fulla ak itam am ñu la encadré nga déggal leen te defe naa loolu feeñ na si carrière bi Ama Baldé bi mu ñëwee su ma jumul ay 2010 yooyu lay ñëw ci làmb yàggul ci làmb tey mooy ñetteeli mbër bi nga xam ne nii ci histoire Pikine moom la yàlla may muy jongante couronne roi des arènes ginnaaw Mohamed Ndao Tyson ak Eumeu Sène ci xale kon moom itam am na mérite tey am na ñoo xam ne nii ñoo ko jiitu su làmb jëkk ko fayee ko millions yu bëri tey moom la yàlla dogal tamit muy jongante couronne roi des arènes loolu defe naa ñoom ñaar ku ci neen mérite maanaam say supporter dañ la war a ñaax ñaanal la mais itam lu ca xew ca combat ba ku ci ne rek na nga gëm ne lamb la sport moo demee noonu mais ñaari mbër yi moom wax dégg yàlla bokk nañ ci mbër yi nga xam ne ni ay royukaay lañ ci lamb rawatina ñi nga xam ne tey ay mbër yu ndaw lañ di dugg si ci lamb parce que ku ci ne bi nga ñëw sa carrière liggéey nga wane nga lu tax tey nga yegg si fii nga yegg si ci niveau kon seen combat bi yal na leen jig daal. Amin Babacar na sax egsi fi ñu egsi si làmb ak ñafe bu ñu ñafe si làmb ak mérite bi nga wax léegi nii xëy loo tax tey nag euh, Luc Nicolas sañ a def 240 millions comme ni ko journaux yi bindee si pour organisation Euh, organisation làmb yëpp. waa c'est waaw c'est normal parce que toll nañu noonu ñoom ñaar ci làmb parce que xam nga ne Modou ay làmbam événement la. yaa ngi dégg loolu la yàlla dogal Ama Baldé itam ba mu ne sax si làmb premier combat am Ibama yëpp ku ko seetaan kera da ngay xam ni kii bu guddee fan lépp ci làmbam événement lay doon. ki ko tëgg. waaw ka ko tëgg itam noonu <laughs> l'homme des grands événements ah. am na nu ko suñu père Bekaay di di di woyati c'est le promoteur du continent loolu kay wax juñ jeex la xam nga léegi moom événement rek lay ci ci lay dox kon ñett ñi ko seq ñëpp ay nitu événement lañ yàlla na yàlla def tamit lépp événement bu réussir en 100 pour cent. waaw waaw waaw la am Gàmbi moom yàlla bu mu amaat ci làmb la ñuy ñaan waaw parce que loolu moom ah, promoteur ba moom la ma waxoon laay waxal rek moom jaanam wàcc na la ko waroon def na ko de wàccoon na ak ñoom fay na leen organiser la làmbam arbitre suuf lee ca desoon ñu bëre la ca des nag ñoom mbëree ñoo ko desoon ak arbitre ba loola ñun moom lañ cay wax mooy kani rek taaralul làmb te encore une fois di encourage di encourage at bu baax a baax a baax Euh, Babacar nag sunu làmb moom tamit mi ngi ñëw def benn taxaw seetlu mooy nee na MMA est que tamit MMA nekkul di jël place ki nga xam ni mooy bëre dóor bi jox nag kàddu ki nga xam ni mooy Doudou Ndiaye Diecko président des amateurs moom lu ma gis nee na ñiy def euh, MMA mbër yi CNG dañ dañ ko war a dañoo war a arrêté lii parce que sunu loolu dina dem ba làmb moom nee na sponsor yi dugg si MMA bi war nañu mën a ñëw si làmb ji waaye moo dafa jàpp ñooñu ay complexe nañu bu laaj nañu aussi Thierno Ka muy premier vice président chargé de la lutte simple euh, chargé de la lutte avec frappe moom nee amul benn commentaire bu mu si def mbër bu nekk am nga sañ-sañ dem bëri ji MMA. waaw Doudou moom yaakaar naa sax yegg na ci ba ci sax ne sax dañ ko war a génne ci dëkk bi parce que réew yu bëri dañ ko fa tere waaw man nag li ma si mën a xam mooy ah génne bi wala mu toog fii. du doon lu nga xam ne nii lu Babacar mën a wax la waaye nag moom du jànjeeku su ma ko déggee fi muy waxee mooy ci sama xalaat président des amateurs la moom sport national am lay défendre te loolu tam am na si droit parce que làmb nag mooy suñu cosaan lépp lu ñu xalaat ne lu koy rey la moom man Babacar du ma ca ànd moo xam MMA la moo xam karaté la moo xam boxe la parce que nag làmb moom nun ñoo ko moom yaa ngi dégg waaye nag terewul ku nekk am nga droit pratiquer sport ba nga bëgg bëgg pratique ci kaw état bi nga xam ne moo yore réew mi joxi ndigal ci ñu war ko pratique ci réew mi bu dee état bi moo nangu ñu fiy def MMA ah mbër mu mu am nga droit Euh, dem jongante ko waaye nag bu naree rey lambit man Babacar moom loolu man du ci ànd wax dëgg yàlla sponsor yi tamit ñu moom seen i produit fu leen neex xëy na mën nañu ko faa yóbbu waaye nag it li sam réew moom mu soqe ko ci réew ñu ko fiy promouvoir yaakaar naa ngay doomi réew mi réew mi jox la loola war nga ñëw it dooleel loola parce que produit bu ñu indi ci réew mi ak ku ko fi mën a indi doomi réew mi koy consommer ñooy jënd kart crédit yi ñooy jënd boisson yi di ko naan ñooy jënd yére yi di ko sol te lépp fii Sénégal lañ koy jaaye kon defe naa itam loolu defe naa dooleel suñu sport moom lu jar di wax la Thierno Ka moom li mu waxee ah moom loolu comme ne du amu ci lu muy commentaire dañ ko koy nangul waaye du jaañ moom su ma ko comprendre daal moom lamb lay défendre te itam am na si plein droit te itam loolu muy défendre muy lamb ji pour mu rester ci réew mi di dund bëri na ñu ci bokkal xalaat. Babacar tamit euh, journal mi ñuy xamal ki nga xam ne mooy Soro Fa nekk manager écurie Ndakaaru wax na tamit ci combat bi am diggante ki nga xam ne mooy euh, Tafa Tafa Gueye 2 ak ak Abou nee na daal Tafa Gueye mën na créer surprise waaw loolu moom loolu Sawru Fall wax lu jar a baxel la parce que Sawru Fall ñu koy nuyu di ko ziar manager la bokk écurie Ndakaaru bokk bureau de manager yaakaar naa ne Tapha Guèye de ku ko xam ci technicité bëreem ak xam-xamu bëre war nga xam ne mën na kere sax lu dul surprise parce que ku weddi laajteel digganteem ak armée waaw bi ko armée bi mu ko tëggee mook armée ah ñëpp xalaatoon nañ ne bu ko armée jàppee mu jeex waaye gis nga fa jël bu ba mu ko daan kera def na ko fi ci ay combat yoo xam ne kenn xaaru koon mu ñëw génn fu garaaw a garaaw kon loolu sawru wax lu jara bàyyi xel la mbër la boo xam ne boo xam ne xëy na boo leen di xool ci qualité bëri doo mën a wax ne abu ñaase ko dàq bëri loolu moom mënoo ko wax waaye nag abu da ko gën a féete xale te buñ ne xool ci doole moo ko war a ëppale yaa moo ko war a moom tamit moo am envie des ci làmb ndax Tapha Gueye tey amatul lu muy prouver ci làmb yaa ngi dégg kon loolu su amee nag abu xëy na avantage na ko ci yooyu ci xale beeg doole beeg yu mel ni ki noonu ak envie des ci làmb bi ak yooyu mën na ko ko avantage waaye expérience bu bëri xam-xamu bëri moom dafa gi moo ko ci devancé kon daal li am solo mooy ah suba si incha allahu rabbi nañu dem Ibamar rek ñu yónnee yàgg comme ni ma koy waxee ñu xool. Babacar suñu jógee nag si journal sunu lamb lañu dem fi nga xam ne mooy Leewtoo point net point le Leewtoo point net ñi nga xamal ni que Bombardier am na combat MMA le 28 février fële si Angleterre ak doomu anglais bu ñuy wax Daniel Podmore euh, combat MMA li ñuy disputé nag titre en jeu euh, euh, muy ceinture mondiale bi bi nga xam ne anglais bi moo ko yor. maanaam titre mondial la bi di moom lay jonganteeg Bombardier la B52 ah si mois de février. sa Angleterre le 28 février ak Daniel ñu ñaanal Bombardier rek comme ni ñu ko xamee woon rek ñun moom doomu Sénégal bi siy jongante ci MMA ñu ngi lay ñaanal nga am sa ndam parce que doomu Sénégal te itam bu ceinture mondial nag ku koy jongante ah loolu du lu tuuti kon yàlla na ko gañe muy lu njëkk Sénégal di gañe ceinture mondial MMA waaw di wax ne que daal kon comme li ma waxoon rek MMA bi moom ah mbër yaa ngi ci am na ñoom ne intéressé na leen ah ñu ngi nañ dem daal ku ci jongante ñu ngi lay ñaanal nga nga réussir ko am si ndam Euh, euh, Leewtoo point net aussi mi ngi xamoon ne li nga xam ne mooy euh, open press Libidor tey la tey si noonu fee si Kayar. waaw sa Kayar incha allah rabi fa lay defee open press am waaw loolu moom muy combat boo xam ne jéesee na ko tëgg moo Serigne Ndiaye ñu war a bëri dimanche Iba Mar Diop waaw kon loolu moom tey lay am bu soobee suñu borom. suñu jógee nag foofu dañu dem si Leewtoo TV ak interview Jackson après victoire am. waa am na lu mu fa jot a wax xam naa dinañ ko seetaan wax na lu bëree bëri. ci fi mu débuté ak turu Jackson wi ak digganteem ak Pape ak digganteem ak Modou Lo wala digganteem ak Balla Gaye bari daal ci lu mu ñëw loolu nag ci kattanu yàlla suba wala ngoon di ngeen ko seetaan ci Leewtoo TV. Babacar nag si kàddu yoon leen tàggoon leen jox dijee incha allah suba incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay Merso nuyu sama doom Mouhamed Diouf di nuyu astandi ne DG Brahma Cheikh Khadija Diallo depuis Italie di nuyu ki nga xam ne mooy Asek Cheikh Khoudia Seck aussi depuis euh, euh, papa yi site euh, Baye Fallou Diamaguène depuis États-Unis aussi maa ngi koy nuyu di nuyu samay doom Maam Diarra Penda Bébé Fallou Rokhaya ak ki nga xam ni moom mooy Moussa di nuyu Aïcha Faye madame Nia ak ki nga xam ne mooy Aïda Diouf Bamba Dieng aussi yaa si biir. nuyu nañ ñëpp ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm ah. di nuyu képp ku ñu suivre rek rawatina ñi nga xam ne nag dañoo ne ci marché yi fu mel ni centenaire Ibra Tall jaaykat yi ni ba sama grand ba rajoon ak jaaykatu si nekk foofu yëpp ñoom Abdou Diouf tamit di jaaykatu saak maa ngi koy nuyu di nuyu mu nekk ci marché Sandaga du ma leen fàtte marché HLM ñoom daam Ndaw xam nga Badara jaaykat du cuuraay ak Xaadim cuuraay maa ngi leen di nuy di nuyu képp ki nga xam ne daal yaa ngi ci marché Caaroy ak Pikine ak Géejawaay ak fépp fu waay mën a nekk di ñu suivre rek ñu ngi lay nuyu mais tamit internet yi suivre duñu leen fàtte ñoom Mame Modou Guèye xam nga Fodé Mamadou Kaolack jàlloo Mor Seck gaa yëpp ñoom Benzema dem nuyu nañ ñëpp Xadiroos Ndiaye yàlla na ñëpp am jàmm di balu ñëpp àq daal.